ñi fi teew ñépp ay sang lañu waaye itam ñu am ay gan Xalifa Babacar Sall bokk ñun ñu nekk na woon daaw ca Grand Théâtre ah mu ànd ak sang yi mu àndal yëpp sur le plan politique sunu mbokk Cheikh Youm ànd ak ñoom indi leen ñoom ñëppit maag ñoom ñoo bokk coalition waaw ñoo bokk Yewwi Askan Wi waaw waaw tàccu leen ko waay kon nag gis ngeen yi xew nii yépp jëmul fenn yëf yaa nga ca kanam waaw yéen ñëpp takku leen pare seen bopp bu élection ñëwee kenn ku ne la fa fajar waaw te kenn ku ne teele la xam fan la sa bureau de vote nekk ndax am na ñu nga xam ni yàlla dina leen déjjiti fa ñu nekk benn ñu dem bàmmeel ba dem kaso waaw duma leen ko wax mam Cheikh wax na leen fii nii joxeel ndigal rek ñu def réew mi dóom mën na nekk man xam naa ni mën na nekk waaw ndax turandoom bàyyi na fi lu ne waaw waaye itam ñoo moom réew mi keneen moomu ko daf ko waxee noonu rek waaw ñoom ñii dama am yëg-yëg ci seen mbir yàgg naa di yëngu ci politique xëy na am na ñu ma daan bokkal di leen jàppale waaye lii ma nekk tey nag moo ma gën a ñor waaw waaw ma wax Cheikh Ahmed Tidiane bii nañu jël sunu parti pur ñu dugal ko ci biir coalition bi waaw xam naa nag ñoom ñu ngay tëb di dal parce que man jógaguma waaw sama njaboot dañu may sargal ku ñuy sargal nag doo xeex waaye bés nga ci ëllëg ah, ok ñu xam lu xew parce dafa ñoo xam ne itam fooye nit ñi baaxul dama dégg ci télévision yi am ci ñuy commenter waaw doomu jaamur yi ñu rey waaw euh, ñetti nit yi dee nangam nangam bëgg màkka la ñuy dee te pourtant dañ doon aji ngir yàlla kon nag ku nangu loolu foofu war ko nangu feneen parce que principe rek la yàlla moom diine mais yàlla moom politique waaw ba tax na kon nag ku ne di garaawal fii ku ne di dramatise am nañu chance bi ma fekkee ma xaw a occupé tuuti waaw waaye beneen a ngi ñëw bu booba ñun ñëpp ñu mobiliser wu incha allah waaw sunu mbokk police yi nag ak gendarme yi ak euh, armée bi ñoom laa yërëm ndax si Cheikh Ahmed Tidiane yi ba mu tolloo fu mel nii ak Senghor dafa wax Senghor ni ko man invité naa la duel ca place de l'indépendance parce que ñii ngay jël di leen utiliser ay boroomi njaboot lañu te réew mi lañ leen aarloo kon bu dee conflit boo am bëgg leen utiliser kooku jaarul yoon mun ko kon nañu dem ñu duwel mag yow rek comme ñoo sonal nit ñi boo ma reyee noppalu bu bu ma la reyee noppalu waaw telle sorte que xam lu xew baax na dafa bari mag ñu ngi ci bàmmeel sax waaw léeg ñu di la nettali diw lu tax mu mel nii mu mel ak lu tax xolam ak lu tax mu bëgg ku ne mu gaañ la di ma nettali ba nettali ma seen ndey ba mu daan ba mu daan yalwaan ca Fatick ak la daan xew ca yalwaan ja waaw waaw waaw kon nag jotagul waaw jóg jotagul Senghor dafa ñëw réception gàmmu Tiwaawan c'était la première fois mu ñëw ci réception gàmmu mu jaar ci kër maam Abdou ba mu fa jógee ca réception ba mu ñëw ci kër sëñ Babacar comme dafa amoon conseiller boo xam ne sur le plan religieux mën naa tudd sax waaye par respect du ma bi comme amoon habitude fu Senghor jëm ci këru diine yi balaa Senghor a wax mu jóg wax ba noppi mel ni kuy orienté Senghor lu mu war a wax naka nag yegg si ba toog Serigne Cheikh moo dem jëli or Serigne Mansour a ngir toog ci canapé bi di ko xaar naka la ñu ba toog naka la toog tuuti rek mbokk moomu jóg rek jëm ci micro bi sëriñ Cheikh jaar ci turam ne ko foo jëm moo ni ko damay jël addu sëriñ Cheikh ni ko fii mag Senghor rek ñoo fi wax mu daldi di mer ndax booba rajo yeeg télévision yi yëpp moom mooy joxe ndigal mu ñëw ci table bi waa RTS ne doon def en direct mun leen couper leen en direct wu Cheikh Tidiane ñu couper ko mu daal di mer foofu daal ni comme nii la nag ñaari gàmmu dootu fi am benn gàmmu moo fi am te kër El Hadj Abdou lañ koy def sëñ Cheikh xool koora ni ko xaaral ba fekk fi waaw xaaral ba fekk la fi waaye juróom benn weer sax amaatu ko fa waaw ñu balee ko loolu mooy tax xëy na yu bari dafa am lu ñu sañ bi ci des mooy ñoom armée beeg gendarme yeeg police yeeg seeni doom ak ci daayira bi loolooy tax doo doo ñu dugg ci yenn yi ndax mag ñi bàyyi nañ fi lu ñu neutraliser force yi Serigne Cheikh Tijani wax na leen ko ci ñetti fanu Tiwaawan ni leen keroog bisu 16 février bu bal tàkkoon ci Dakar rek ma bàyyi yàlla ak yeneen bi loolu mu ngi fi ba tey ci Cheikh Alxaaji Omar ba tax na nag lu ko jaragul daf ko jaragul rek waaw ah. te li xale yi wax léegi wax nañu dëgg ñun fii moo ñu gën jig waaw parce que fu ñu defe sunu cérémonie Mbacké dana fa wàcc te am na ñu nga xam ni yàlla naratul ñu am barke moo tax mag ñi ñoo ñoo ñu dégagé ñu jóge foofu waaw fii lew ñu doom en quarante-huit heures ñu réglé li ñuy réglé yépp waaw ko defee ñoom xalifa mi ñëw ànd ak ñu baax ñi mu àndal yépp rawatina soxnaay de mbóoj bii ndax may itam bu dul fayde am na loo xam ne duma ko jaral dama gis ñu invité ko ci benn moom soxna ay dimbooj bile waate TFM ñoo doon def débat bi mel ne kuy jéem a wut nu ñuy naxaate ki xam ne xaj posu premier yu kenn xamul waaye mu tontu leen tontu bu am solo ni leen sunu opposition bi beneen opposition la waaw kon nag baye boo ngeen tey rek waaw mu nit sunu doomu sang boobule dafa wax ca Tiwaawan ni am na ñoo xam ne ku mënula ànd ak ñoom baye boo seetaat sa bopp waaw waaw wa tabaarakallahu wax fa wax yu am solo ma suivre débat ba ba mu jeex waaw ba tax na loolu nag mooy li ñu préoccupé ñun ah léeg ñu def seen comédie nag ne xam nga ni Sonko bi muy jóge këram ni dafay julli ji jumaa te ñoom ñuy lànk ni du dem ñett garde du corps la àndal hmm? li ñu wane ci écran bi mooy ñaari garde du corps la àndal may laaj ndax Macky Sall fitam may na ko muy génn dem juma pour ànd ñaari garde du corps jamais ah kon nag ku dul sa morom am na façon bu mu la koy wane waaw defee kon nag bu mu tooñ nag waaw bopp mu ngi jéem a cokkaas waaye ki nekk ci gannaawam laa xam ndax kenn poussé wu ko ku dul Abdou Diouf te Serigne Cheikh Tidiane si moom ma waxoon ni ma Moustapha ma ni ko labbayka mu ni ma gis nga Abdou Diouf ma ni ko am ah, mu ni ma bu ko àdduna yàggi mukk ba nga wóolu ko mu ni ma bis bu mënee fayu ci sa kaw dina fayu yàlla wan ma ko fan yi événement yi ñëw ci biir semaine bi maa ngi koy nettali am Cheikh ma fekk ko ci benn daje ci Tiwaawan ñëw ko jox loxo mu lànk di dugal ni am na lu xew kon la ma góor gi waxoon ma nga ca na ngeen déglu yu bare parce que mag ñi dafa am façon buñ lay wane waaw ma soxla góor gi ñëw ci kër gi mu nekk fi ibre Njaay daan toog nga xam ni ku soxla góor gi moom ngay wax yóbbante bi mu dem wax ko ma ñëw foofa fekk fa Issa Sall kon xam nga loolu am na lu muy junj mais

fekk fa benn sarcophage bu mel ni bi ñuy denc pharaon yi ni sarcophage bi lu muy wut fii ñu ni ma kooru Serigne Cheikh lañ ci denc ku am dégg rek booy boo nga déglu waaw kooru Serigne Cheikh la denc ci sarcophage gisee fâche noonu ma gis benn nit bu ma xam fii ci Tiwaawan mu ñëw rek ubbi sarcophage bi ci boppam nag génne kooru Serigne Cheikh naq ko ci biir ndox ma xam ni wax la moo tax seen événement yi yépp sutura yàlla yàlla du leen seetaan incha allah waaw nañ taxaw rek ngeen nekk ci terrain politique bi ñun ñu féete leen ci daara ji waaw bu ko defee kon nag loolu ñu wax njaboot gi rek moo ci nekk ba Sénégal de Sénégal ba léegi mosuma bokk ci benn coalition waaw daan naa jàppale ay nit nag te fekk sax ci góor gi lay jóge mais jàppale bi it masul passé Ablaye Wade mais bii yoon nag ma jël sama responsabilité jël sama parti ñu dem dugg ci ñoom ànd ak ñoom xeex bi ko defee kon nag ñëw bi ñu ñëw nii sax yéene rekk ni man waxoon naa Cheikh ni ko dëkk ba dafa yëngu te ñoom itam comme ñu ngi leen di wut moo sañoon rekk ñu jéggal leen ñu continuer seen activité ñun ñu féete leen foofu incha allah moo tax bi ma yegsee léegi nii mam Cheikh ni ma ñëwal nga nuyu ñoom Khalifa Sall bi ko ban Khalifa ñu ngi nii ma ne ñoom ma jégaloon leen bu ma sañoon duñu sax bouger ndax événement yi nekk Dakar waaye ma xam ni ñoom it ak seen yéene kër jëmm la ñu bëggoon a ñëw waaye dafa taseeg keroog décision yi ñu doon jël mu conserné coalition bi rek ci guddi googu lañ ko jël waaw ñoom ñu waroon xëy nag def réunion pour seet nag ban décision lañuy ñuy mën a jël pour def fas li xew ba tax na kon nag ñu ngi leen di dalal di leen sant ñoom ñu ngi may sant sànq waaye ku nekk yaay sant ka ca des man li may def defuma ko pour kenn pour sama bopp moo tax ma di ko def ndax ñoom maam Cheikh ñii ñoo ko moom waaw bari na sax bi ma ñëwee Tiwaawan ñu may yóbbante ni ma sëriñ Moustapha na nga taxaw loo man ci maam Cheikh ndax jëmuñu ci yow ci moom lañu jëm man leen kon di dañuy xaru waaw ni moom dama wax turandoom fële laa ko teg waaye bala ñoo jot ci moom dina am lu leen doy de waaw incha allahu ba tax na loolu turandoom waxoon rek moom la ñuy fayewaat bor bi waaw ñoom ñi ñoo ñu gënal sunu dund waaw waaw kon nag lu mu jar ni mu leen ko jarale ñu nit noonu lañu ko jarale ñoom soxna Fatima ngi nii di jigéenam ak yaay mii ak ñoom soxna Umu ak ñoom soxna Aji ak ñoom docteur ak soxna Ndey Kumba bi am ngant ñoom ñëpp li mu wax dañu yóbbaale ñi nekk fii yëpp waaw mu mel ni kon nag sunu mbokk yu baax yi fi toog nii Hadji Mansour Diop bu Sen TV waaw ak Pape Alé Niang tabaarakallaahu ah émission bi mu mujjee def li mu doon posé comme question ñun lu ñuy luñ koy doyee da wax na dëgg waaw xëy na moom course ba sax la doon proposé waaye course ba comme góor gi moom moo ko tànnoon te guddi yonent bi la ko doon doyee bëgguma ñu rax kook leneen waaw loo tax ma ne njaboot gi rek nañu dem ci kër ga waaw luñ fa bëgg a def mën nañ ko fa def waaw wax maam mi ñu ko jëlal say disposition nga seet ñi ngay collaborer rek man maa ngi toog di leen déglu waaw mu mel ni kon nag ah ni ku la sant yow it nga sant ko ndax taxawaay bi ni ko xalifa waxee léegi mais ñun looloo ñu war waaw ndax mag ñi dafa am luñ lay wan ak luñ lay wax waaw Sénégal gii fii ñu jëm nii bu delluwaatee ci ay loxo ya mu newoon mag ñi génn ci ñun waaw ñi génn ci ñun man maa la ko wax waaw ba tax na nag bu ñuy wax naan sëriñ si sëriñ si nañu wax sëriñ si ñu ji ji tax ñuy wax waaw sëriñ yu nga xam ni ñi nekk ci état yabu du leen waaw xam nañu ñooy kan waaw ko defee ma defe ni nag maa koy wax maam Cheikh fekk benn militaire bu ma am comme wëllëree mu ni ma na ngeen def très attention yéen Moustarchidine yi ma ne ko lu tax mu ne xam nga gendarme yi li leen merluwaat policier yi mooy li xewoon 16 février moom lu ñu bëgg a fayu ba tey ma waaw kañ la woon 16 février du 94 94 ak léegi ñaata at la ñaata régime ñoom moo leen war a xamal ni fii am na yeneen i kilifa yu dul ñoom yi ñu yaakaar waaw ba tax na kon nag ah buñ leen bàyyilee xel ñoom it nañ ñu bàyyil xel waaw réew mi ñun yërëm nañu ñi fi nekk coono bi ñu nekkee waaye dëgg yàlla opposition bi li ñuy def defuñu ko pour seen bopp dañ koy def pour génération yii di ñëw waaw ndax du jaadu ci ñoom ñu di leen seetaan waaw moo tax ñun ñëpp ñu war ci dugal suñuy loxo incha allah bu ko defee ñu sant xalifa mook délégation bi ñu àndal yëpp ah bu ñu demee encouragel ñu ñoom Sonko encouragé ñoom Déthié encouragé tabaarakallaahu suñu mbokk yi ci des yëpp surtout Ahmed Aïdara waaw lii yëpp ay jaar-jaar la lu normal la waaw ñun ñii yëpp jaar nañ fi waaw man mii biñ ma dencee prison di wax ay trouble de l'ordre public ak yu gën xamoon la tax ñu gaawantu génne ma ma benn mag moo wax président bi ni ko xale bi ngeen tëj ni da ngeen ko tëj bu fukki weer fexe leen ba bu mu fi fukki weer waaw ne bu fi fukki weer rek ngeen yàqu yaxet waaw taxoon ñu gaawantu kërëb kërëb kërëb kërëb ni dañuy négocier pour ma génn yónnee ci Serigne Cheikh wax ko ko Serigne yoon ne ci man ci prison bi man ko génnuma defaree ba bëgg de ñii ñoo dëgër bopp de waaw waaw waaw waaw ma ne ko génn ma waaw comme fukki weer la ñu wax ah, ma ne ko nañ ma bàyyi ma jeexal sama fukki weer bu ma génnee jaar ci digg ba waaw mu réew ba bëgga de ni ma ñoom tëjuñu la ñi ñoo am lu ñu bëggoon mottali ci yow te bu nekkee ci biti doo ko mën moo tax ñu dëj ci ruq bi nga mottali loolu boo paree ñu soog a jublu ci fi ñu jëm ak yow waaw loolu moo tax sax ma mujje nangu génn waaw kon ñun ñi fii ñëpp jaar nañu foofu sëñ nañ ko ñaari yoon waaw ci fayda ja waaw fayda ja ndeysaan keroog bi ñu ko fekkee ci prison bi ni ko Senghor nee dina waaw Senghor nee na dina la rey mu ne ah kon de dugg na ndax asukan li mu liggéey ci kër Babacar Sy bu fekkee ni doom ju njilaan juddu moo may sacrifier man ma xam ni kon dina am leneen lu mu wax Babacar Sy waaw maa ngi gis lettre am boobu Moussa Gueye di ko jàng waaw ñu def ko ay vidéo njaboot ji di ko partagé waaw ñu tax na ko waxuñu fi pour xuloo mais dañuy rendre compte njaboot yi fekkeewul woon lu xew démb ñu wax leen ko tey pour ñoom ñu jël seeni responsabilité ñun ñu couvrir leen waaw <laughs> noonu rek la demee bu ko defee ñu gërëm waa Yewwi Askan Wi fan yi passé yëpp ndeysaan dañ may booleeg lu mat ñaar fukki scooter ak juróom waaw di leen wax ni am na ñoom sëriñ sëriñ yu ñu utiliser ci ci local yi léegi nag nañ may topp pour fu ma dugg ñu xam dinañ xam ban sëriñ la ñuy jëfanteel waaw man dinaa donn ci Maodo li ma donne ci Maodo donne ci sëriñ Babacar li ma donne ci sëriñ Babacar donne ci Seyid Cheikh li ma donne ci moom lu bokk la El Hadji parce que moo ma joxoon 16 16 février ba noppi di seeti keneen ku ma defal leneen je pense bien que loolu ñàkk a xam lu xew la waaw nga tax na mag ñi li ñu doon liggéey yépp mu ngi fi waaw nañu dox ñun li ñu war a dox rek te jaar fi ñu war a jaar fexe ba li ñu bëgg a jaxase ak yi ñu bëgg a lànk ñu jël suñu responsabilité def ko fas ba li ñu war a accordeel ñu accordeel ñu ko incha allah waaw bu ko defee rek ngeen bal ñu seen sa ma dugg ci domaine boobu ndax xam ni yéen it am na lu ngeen mérité mooy bu ngeen ñëwee toog fii ak li xew ci dëkk ba ñu wax lenn li pour encourager leen waaw loolu rek moo ci nekk farata waaw maa ngi ciy mere Moussa Gueye mii sax barki démb waaw ma ne ko lu muy wut RTS ba léegi waaw wallaay bàyyi loo loo fay wutati waaw man bu sañoon sama benn njaboot dootul dugg ci lu lu Macky Sall kon waaw yàlla xam na ko waaw kon nag yàlla mën na la jox loo ëpp RTS incha allah waaw bu ko defee rek noonu la demee xam nañ ci lu bari mais chaque chose en son temps ñu ngi encourager tout le monde sama mbokk ma Barthélémy Diaz mu góorgóorlu la mu commencé tabarkalla waaye it lu mel noonu moom la Khalifa Sall commencé woon mënuñu ko supporter waa ba lépp lu ñu mënoon def pour yàq ko danañ ko def waaye comme yàlla jógewu fi nag na jàpp ci yàlla waaw ñun ñu jàppalante sunu biir te taxawoonte ci sunu biir incha allah waaw loolu laa ni woon rek ma wax ko ni man li ci jëm ci man mooy lii capitaine wax rek man li ma yëngal barewul yàlla xam na ko li ma yëngal barewul ndax góor gi dafa am lu ma yàq ba noppi waaw moo tax rek di sant yàlla benn mbokk bu dëkk Mauritanie ma yónnee benn audio ci audio bi mu wax ma ni ma dama gis sëriñ Cheikh ci gént mook sëriñ Babacar mu ni ma sol ay bor mu ni man topp plage commencé ko ca plage bu Mbuur plage par plage nee na ni ko nag waxal Moustapha ne ko lu ñu suuloon ci plage yi pour defar seen affaire ñoom ne ko mag sëñ Babacar solli nañ ko waaw bu ko defee kon nag loolu dal xel la kon nag ñu continuer sunu lutte te bàyyante xel rek te li ngeen di tëral ñépp bañ ko xam waaw wax naa ko Cheikh Yum mi ba tey waaw bu ko defee rek ku ñu xam foo jëm doo fa yegg waaw législative yaa ngi ñëw waaye bala ñu ciy wax ñu xaar ba suba ba xam Macron fu mu jëm ñu xamee fu mu jëm ba noppi dinañu xam Sénégal lay xewu ëllëg la lay doon waaw ñu jël suñuy responsabilité à notre manière waaw bu ko defee kon nag moom Serigne wax na leen ko bu defe ne damay xuloo sax xamul xew dafa am benn compte rendu rek bu ma waroon joxe nii lii Serigne Ndiaye wax ca kër jëmb lu toll noonu ci mbooloo bu toll noonu ci àll bu toll noonu ah ko yàlla dégg ku lay fontoo day xaru rek waaw bu ko defee nañ taxaw nag def fayda xam sunu bopp am na am na ci ñu daan soow sox ku ne daa waaw waaw ñoom gañewuñu Tiwaawoon nangam nangam mais Tiwaawoon mag ñi ci bàmmeel yi ñoo ko bloqué ñoo ma yónnee wax ma ni ma Tiwaawoon leen ko jël léegi dafa bari ñu ngeen séq te seen xol sellul te am na responsabilité boo xam ne ku koy jël te ña nga koy bokkal seen xol sellul buñ lay trahir daf lay bett waaw loolu taxoon ñu ni ma nañu xat ci bu ko defee kon nag législative yi C'est un début, mais un début de la fin. bu ci defee sunu jom ak sunu taxawaay yàlla mën nañu ci jàppale incha allah waaw ah. kon ngeen encouragel ma ñëpp wax leen leen di bàyyi xel te ñu ngi leen di ñaanal ci mbaaxu yàlla incha allah boo gisee sunu boroom lu tax suuratu tawba wutalu ko bismillahi rahmani rahim loolu moo tax parce que boo ci defee bismillahi rahmani rahim bi day am yërmande te am na ñoo xam ne ku leen bëgg a écraser doo ca boole yërmande waaw. tax mag ñi suratul taw ba rek la ñuy xeexe waaw. am na lu fi mag ñi bàyyi waaw. bu ko defee kon nag yëf yaa ngoog daal seen arsenal de guerre sur le plan mystique mu ngi fi waaw kon yi nag def leen l'essentiel rek ñu nit ñu def l'essentiel waaw ci mbaaxu yàlla barke mag ñi waaw ñu ngi sant nag ñu fi jaar ñëpp am naa capitaine wax na yàlla ak sagal njaboot sax moo tax ñuy ñëw ba fii ñoom soxna Fatima ñoom yaay soxna Umu Xëyri soxna Aja moo tax bërkat démb bi ñu toggee ñu téléphoné leen wax leen ni leen dindi nañu contrat wu arena bi ma gis ñu mel ni dañu am déception waaw man leen may jaru ko jaru ko dem leen ngeen taxaw rek ñoom bés bi la bañ moo am bés bi dana am waaw te maam Cheikh wax na ko foofa ca parole am waaw waaw amul tey hmm? Hmm. ñu sant yàlla njaboot yépp jaar fi ku nekk façon bi nga mën a sant def ko waaye booy seetlu ni li nekk ci biti moo ëpp li nekk ci biir waaw man dama waxoon sax maam bu may ñëw ba damay dugg ci saal bi ma jaar ci biti pour gis ñi ci biti ba noppi waaw waaye weesu ndax yàlla ka rek sagal njaboot waaw ah yi fi Fatima wax yépp nag ci seen programme ah maam dana ca toog ak ñoom seet ci ban façon lañ koy réaliser waaw ñun itam luñ ca mën a jàpp ñu jàpp ca incha allah waaw ah bis bu sama mbokk bi le Cheikh Tidiane Mbengue chaque vendredi dafa am message bu may yónnee presque message bi may yónnee mook mbokk ma nekk Togo Alioune Dia presque même yónni waaw bërki démb laa ko mujje yónni mm-hmm. ma ànd ak ñu dem Casamance ci ay mbokk yu nga xam ni miinu ma leen woon sax ñu dajale seeni mbooloo foofu mbooloo ma pare na ñoom ñu ni dañu tënkuwul fenn te daal bu ñu sañoon am kilifa gis nañu sax ñu fa nekk bokk ci yenn tariq yi waaye ñoom daal man maa leen doy pour nekk seen kilifa waaw ah ñu ñoo waxtaan ak man wax ma dafa am seen daje bu ñuy def ci mois de bëggoon man ci sama bopp maa fay dem waaye dafa fekk mu xat ci man ma ñaan Cheikh Tidiane Bengue mi mu ànd ak ñoom Alpha Diop bu Mauritanie ñu dem teewal ma fa wa tabarakallahu bi mu ñëwee jox na ma compte yu am solo ñi ma ñi ma gis foofa daal baye boo ñu taxawu leen waaw ndax te ñu dogu lañu waaw ma ne ko effectivement parce ruq yi foofu man xam naa seen façon kon nag ñu jàppale leen dafay nekk farata ma defe ni kon nag ñëpp buur jëm si ci ñun waaw waxuma man sama personne ne ci li ma bokk ak yéen waaw ndax loolu rek moo fi des di yaakaar pour peuple bi waaw bu ko defee kon nag ah am ngeen responsabilité ndax dama gis ci bëccëg sama àdduna sa xaw na tukki waaw ay mag yu toog ci table war a yu am solo ñuy sàggante ci kaw table yi walla loolu ci Sénégal di saagaat te ñi jëkkee saaga ya waa kër Macky Sall lañu diggante yu kenn xamul wax lu ne ma ne lii naka lay ànd ak réew bi mën a marché moo tax ñun ñëpp nañu jël suñu responsabilité te taxaw def face waaw tout le reste waaw incha allah ah, comme dañuy lank liste yi on verra bien taxaw leen ñu taxaw waaw la ci des mu nga ca loxo yàlla loolu rek la waxoon ni bu ma ñëwee ngir yàlla ak seen teewaay ni nar woon dugg ci cadre politique tellement que dama leen si bu bëgguma dugg ci seen wax waaw waaye nag bu ngeen fi teewee ak li xew mënul ñàkk ñu wax ci waaw loolu rek moo tax ni ñoom jaralu jaraluñu dara bi ki des itam mooy ñu sol tenu yi ñu benn fayda ndax ku ñu xarloo réew benn nit rek di la manipuler nga defe ne yaa ci nekk yore ay jëpp ñu naan jëpp benn rek mais ñun yooyu du suñu problème yooyu du suñu problème renverser le tout mook naan ci ndox mi la ñu yemale waaw ba tax na kon waxtu bee jotagul rek waaw bu waxtu wi jotee on verra waaw ko defee kon nag sant sunu mbokk journaliste yi moom Hadj Mansour sant Pape Alé dafa yàgg di intéressé wu ci sunu yëpp Mansour mi ci xuloo la dëkk bis bu ne ci antenne bi waaw sunu jigéenu bopp soxna Astu Kan jonn dafa am empêchement moo tax mu tagg ko dem soxna Astu ko tuddee waaw mu ni ma sama papa moo yoroon daayira Serigne Cheikh bu poste waaw mu ne ma ma nga ca bàmmeel waaye bu yëgoon ni tey recevoir nga ma du ko gëmme ndax ni mu meloon ci Serigne Cheikh mu nekk ci 2STV buñ doon benn sax baax na en plus forte raison ñëpp lu ñu xalaat ñoo bokk ak ñu nit fu ñu jëm ni ñuy assister ñu nit dinañ leen assister nu ni toll incha allah waaw noonu rek la demee sunu mbokk Maguette Fall dafa am ngànt nee bëggoon na teew mais dafa war jëm ci voyage Oustaz Modou Fall la même chose dafa am ci programme buñ ko yabal moo tax ni mu bëgg woon teew teewu ko am na ci ñu dul jeex ñoo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy xalaat waaw tax na kon nag hmm, yal na yàlla motali te yàlla yokk sutura yi te yàlla def tawfiq waaw eh, loolu rekk la weesuwu ko waaw gërëm ñi nga xam ne yëpp sponsor yi ci ñoom la ko ñoom soxna Fatima Diallo waaw gërëm itam peeru dayre yi ak meeru dayre yi gërëm itam tous les responsables du mouvement gërëm itam tous les responsables du parti en particulier Cheikh Ahmed Tidiane Youm wa tabarakallahu soxna Aïda Mbodj bi ci sunu meeting bi woon fii nee ma ku la mat ndaw la wa tabarakallahu kon nag sant yàlla waaw kon nag ñu ngi tëj foofu ah, la ca des ñu topp ko rek xëy na daje yi mën naa am du yem fii am na yeneen yu nekk ci kanam bu ñu ca yeggee rek ci baaxu yàlla incha allah mais nañuy bàyyi xel sunu bopp rek waaw nañuy bàyyi xel sunu bopp rek wax naa ko maam cheikh bi capitaine waaw dafa am ñoo xam ne ku séq ak ñoom da ngay bàyyi xel sa bopp jamono bu nekk waaw fii ba mille vingt quatre bu benn njaboot ñàkkal faydali xew na ñëpp di takku ñëpp di pare seen bopp waaw on sait jamais waaw bu ko defee rek kon yàlla ngi baax ba tey waaw sama mbokk ma nag invité woon waaye nee na dafa am dëj ci diggante bi mooy xaaj sur Sarr ni waxoon na ba ni dina ñëw ba yóbbante Pape Cheikh pour mu wax ma ko en dernière minute mu yóbbante seen imaamu raatib bu dëkk moo faatu te comme moo ko war a taxawu moo tax loolu du mën ñëw waaw ah. waaye rek bis nga ci ëllëg waaw kon daal capitaine ah ñu bàyyi la boog nga joxe ñaan yeewi seen gan ñi ah, bu ñu jógee ba ñu may leen ñu génn ba noppi ñu soog a jóg ndax nit ñi bañ leen xatal incha allah kon ma jox la ko rek li nga daan joxe ñaan incha allah